maa ngi lay siyaare. ziar la bu yor Omar di ziar képp ku ñuy suivre saa su nekk sur la BP Actu te dalal leen jàmm ci seen xibaar revue de presse. te danga muuru de. rek tey ñaan yàlla mu nangu ko. auzu billahi mina sheytaani rajim yal nañ ci yàlla musal sa genre gii journal bu Vox Populi la ñu koy daal di ubbee Amina mu daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne ni moom mooy ndam lu rëy li nga xamante ne ni doomi réew mi am nañu ko démb ñu daal di qualifié ci coupe d'Afrique coupe du monde war a dem ca Qatar. mu nekkoon nag qualification bu métti woon loolu xale yi wane jom wane fulla wane fit wane njàmbaar ba suñu borom may leen ndam li ci kaw Égypte encore une fois par série de penalty comme ni nga ko waxee démb nag moom ni ko jeunes doon tuddee rek talaatay ndeer doon te sax talaatay ndeer moom kenn ko comparé ak leen nag mm, waaye démb nekk na bés boo xamante ni daal Omar loo ci xam daal li li suñu mbokk yi naan alaa doome na ala doome na fin nag demoon na benn moment waaye nag lépp rek dañ ko daal di euh, gërëmee ki nga xamante ni moom moo di Aliou Cissé gis nañu euh, remplaçant yi nga xamante ni moom la daal di dugal au bon moment ak ñi nga xamante ni ñoom la daal di génne au bon moment Égypte nag démb bu ñu gërëmee coy li ne day olof njaay bu ñu gërëmee nag lekkee olof na ko gërëmee coy na ko gërëmee coy donc faaw ñu sante ko supporters yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci laser yi ndax ñoom démb mel ni daal ñoom ñoo nekk homme du match yaakaar naa ne am na solo Amina Ndiaye ndax démb lépp luy vert rek Sénégal la ginnaaw mayo baak tubéy ba ñu ngi ci kaw tribune bi di ko tàllal joueur égyptien yi moo tax bari na tey ci journal yi nga xamante ne ni yeewoo nañu ci réew mi seen xët yu njëkk ñu wan ñu doomu réew mi moom lañ ñu wanaat tey jii ñoo ñoo ñun ñoo nekk au diapason comme ni nga ko gisee rek champion d'Afrique day daal dàgg naa ko ba Qatar ñëw yegg si ñu daan yee champion d'Afrique yaa ngay yegg si ba tax na nag moom ñu ñooy dem ñoom duñ dem ba tax na sant yàlla bu baax a baax a wax Edouard Mendy daal di ne assuré Sadio comme d'habitude mention spéciale ci li nga xamante ni moom mooy euh, bi bi mu ñu libéré dee mu deemu yeeyu na askan bi Aliou Cissé ndax moom kenn demul mu des ndax dafa dem nag ba nga xamante ni teel a nangu doy doy yombali dóor Carlos Queiroz daal di nangu yaakaar naa ni am na solo Amina Ndiaye démb dañoo gis Aliou Cissé sax ci facette boo xamante ne ni ñenn ñi nee nañu gëj nañu koo gis depuis 2002 Aliou Cissé buy taxaw di gët nit ñi Aliou Cissé buy taxaw di yëkkati public yaakaar naa ni marché bi dem ñoom ñëpp a ko bëggoon moo tax sax l'observateur def ci ab jàngat bu rëy ne mieux vaut Qatar que jamais. mieux vaut Qatar que jamais kay demaat nañu ci li nga xamante ni moom moo di coupe du monde bi Aliou Cissé moom gàcce ngaalaama lu mel ni moom mosu fee am donte sax bari na nag ñoo xamante ni jaar nañ fi liggéeyal nañu équipe bi lu nekk waaye nag yàlla ci loxoom la tegoon li nga xamante ni moom moo di réussite euh, équipe bi ci coupe d'Afrique bi waaye tamit li nga xamante ni moom moo di seen ticket d'entrée euh, ci coupe du monde bi euh, débrief bi nag kii nii di seen ancien ancien capitaine des Lions ñu koy wax Boubacar Sarr Locotte daal dina ciy def jàngat Omar Daf Lamine Sané ba ci El Hadji nu Diouf mi nga xamante ne ba jàppee ba tey bawul yaakaar naa ni am na solo Amina Ndiaye waaye nag Sénégal moom dafa nekk dëkk boo xam ne loo koy lebal na doon jàmm ak salaam ak teranga parce que nag dalay fay moom dañ lay fay ba wis la boo xoolee démb ni supporters yi doxalee ci kaw turbine bi ak ni joueur yi ak ñoom ci biir terrain bi nga xam ni fay nañu ñaar bi xoromam loo ñu jox ñu daal di lay wecc Sénégal moo demee noonu loo ñuy tàllal rek na doon loo xamante ni noo ko wóolu ñu jox ñu daal di koy wecc gis naa publication yi ba match bi jeexee sax benn égyptien daal di amal benn publication di yëgle ni euh, démb euh, ci guddi gi cent millions d'égyptiens yëpp ñoo toogandoo di ñaan yàlla Sénégal mu daal di tàq waaye nag mënuñu ci dara euh, bërigo ci mbartal la puus mu dem puusul mu dem Omar looy def Firawuna yi da Amina Ndiaye yaakaar naa ni démb moom yëg nañ ni bu baax a baax a baax ñu ngi ci réew mi nga xamante moom mooy Sénégal Ndiaye le pays saint dëkk bi nga xamante ne nii macha allah suñu borom daf ko jagleel ay ndaw yoo xamante ne ay ndaw yu gëm seen bopp lañu yu bëgg liggéey yu nangoo liggéey yu nangoo daan seen doole waaye ñu gëm seen moroomu doomu réew. libéral l'observateur des Amina Ndiaye ci wàllu politique. Idrissa Seck mu yëkkati ay kàddoom jëmale ko ci législative yi ñu jëm ci mois de juillet prochain ku ne xam na ni nag moom mooy. parti moom mooy jiital politique bu parti politique bii di réew mi. réew mi moom moo ko jiite sa Seck bu Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar moom nag daal di nay euh, wàccaleeg sur le terrain di yëgal partisan mi daal dina jëlaat réew mi en main lépp lu ci war mu daal di koy def indiwaat politique gu boppam comme ni ko ñëpp xamee woon ngir waajal élection législative yi ñu war a amoon mois de juillet prochain incha allah rabbi ci diwaanu université Gaston Berger bu Saint-Louis. ginnaaw génnub àdduna ndaw si jigéen soo si nga xamante ne ab étudiant la woon foofee ci école ba ñu ne dafa woon noonu lor ba tolloon sax ci yenn ci ay weer ki ko ko tegoon moo faat bakkanam journal bi ñëwaat nañ ci journal bi ñëwaat na ci démb la waaja daal di daanu nag daanu leer wax ni mbir mi demee yëpp non seulement dafa wandoon lor ba toll ci 4 mois mu koy poussé mu dindi ko soxna sa bañ mu dóor ko gu ku ba mu ñàkkee bakkanam moom daanaka sax moom double meurtre la def ndax euh, soxna si dafa ëmboon loolu la ñuy woy double meurtre en même temps faire d'une pierre deux coups moom la waaja mujjee def waaye enquête ba yemu fa ndax ba mu jëlee corps bi dugal ko ci valise bi ñëkk na ko teg ci jakarta mu gis ne lii dis na lool ba mënul dem dafa daal di woo benn chauffeur chauffeur ba moom moo ko daal di dimbali mu yóbbu ko ba bërëb bi nga xamante ni foofu la ko sànni yoon nag daal di nay teg loxo ki nga xamante ni moom moo di chauffeur bi mais pour le moment xamaguñu ba xam chauffeur bi xamoon na dëgg-dëgg li nekk ci valise bi am déet ak lu ci mënti am lu ci mënti xew dinañ ko daal di auditionné. dinañu ko daal di auditionné déglu ko xool naka naka lay wax. waaye nag ñii xarañ nañu xarañ goo xam ne Amina bu ñu lay déglu bu ñu sa ay gët rek dinañu xam li ngay wax dëgg la am du dëgg violence conjugale waa ji jàpp na ab soxnaam boo xamante ne ab belge la dóor ko dóor yu metti ndax lan kaay dugg ci diine l'islam ak saaga yi nga xamante ne ni ndaw si doon na ko saaga yaay borom këram. lakkum diina kon wala diin téyel sa diine keneen téye waaye nag saaga yaay bi man dong loolu dong lañ ci mën a indexé euh, soxna si belge la moom moo ko xool mu nekk chrétien mu bëgg ko lool mu daal di koy takk bu fekkante ni mën na supporter religion na daal di supporter religion non seulement dóor na ko ndax da ko ni kay convertir ci l'islam mu daal di bañ teg ci tamit nag nee na soxna si dafa daal di saaga woy bu jigéen mu daal di koy dóor dóor yoo xamante ni tey moo leen indi ci journal yaakaar naa ne am na solo amee Amina Ndiaye Vox Populi daal di ñëw ak ñun ci li nga xamante ne ni moom la ñu ràññee ay révélation yoo xamante ne ni ni nagib waaw nagib def na ko. ndax ay révélation la yoo xamante ne ay révélation yu am solo la te yu jar a def la yu am solo la te yu jar a def la comme ni nga ko waxee rek Omar nee nañu nag ñi nga xamante ni ñoom ñooy faral di utiliser smartphone bi lu ci ëpp ëpp ëpp nekk ci H24 bu ñu jugee YouTube daal di dem ah, fi nga xamante ni moom moo di WhatsApp jóge fa dem TikTok dem Snap dem Instagram dem Twitter dem li nga xam fi nga xamante ni moom moo di Telegram ak yeneen ak yeneen ñoo xamante ni seen àdduna yëpp duñ ko jël daal di koy rek sëf ci li nga xamante ni moom moo di les hommes digitales waaw ñoom daal ñoom nee nañu mbir moomee dafa nekk loo xamante ni dina am entrave ci euh, seen vie sexuelle maanaam daal dina ci am ay conséquence lu ci ëpp day faral di wàññi seen vie sexuelle ba tax na daal docteur yi ñoo ciy alerte bu baax a baax ndax dañuy dem ba dund ay mariage yoo xamante ni sax virtuel lay doon di dund mariage yoo xamante ni fictif lay doon ndax ku ci nekk tey ji jàpp nga ni daal am nga jabar ci réseaux sociaux yi ba tax na doo ko wàcc. waaw loolu de muy bloqué maanaam expliqué ma quoi nan. docteur bi daal loolu la si wax nee na nekk na mbir bi nga xamante ni dafay bloqué si euh, li nga xamante ni moom moo di sa vie sexuelle bari na ay conséquences yoo xamante ni war na ko cee mën a amal dem na sax plus loin bay wax ne loolee moo gën a raw fuufu drogue war a alcool boo xamante ni danga koy utiliser. nañu ci bàyyi xel Amina Ndiaye ndax yaakaar naa ni jamono ji moom ñëpp ñu ngi ci réseaux sociaux yi ñëpp dañoo war dañuy dañuy rester scotché ci seen ay téléphone di fouiller rek jëmale suba. leneen li nga xamante ne ni naa Ndiaye gis nañu ko ci journal bi nga xamante ne ni moom mooy Libération mu ñëw ak ñun ci affaire Sonatel fi mu toll ni affaire yaa ngay gën a ëppi loxo ndax amaat na yeneen ñaari mandat de dépôt ak beneen contrôle judiciaire boo xamante ne ni ñu ngi ciy doxal. comme ni nga ko waxee rek euh, yeneen euh, ñaari mandaa de dépôt euh, boo ko yokkee ci ñaari yi amoon biki démb ak benn ba jamono jee mën nañu cinq ou bien quatre mandat de dépôt yoo xamante ni am nañ ko ci mbirum détournement un milliard de francs CFA ca diwaanu Sonatel teg ci tamit nag contrôle judiciaire nit boo xamante ni tënk nañ ko ni ko daal mënoo génn mënoo voyager ñu nangu li nga xamante ni moom moo di passeport am. yaakaar naa ni nekk na loo xamante ne ni tamit lu am solo la ñu koy def ñoom enquêteurs yi. li gënoon a fës itamit Amina Ndiaye ci fii nga xamante ne moom mooy ci journal bu suñu làmb dafa daal di ak ñëw ak ñun ci combat bi amoon dimanche passé ci diggante Eumeu seen ak le B52 de Mbour bombardier ay sanction na nag moom moo jóg sanction financière maanaam reliquat ba desoon ci CNG CNG teg na ci ay daan te am na yu tegu ci ndoddu Eumeu seen am na yu tegu ci ndoddu Bombardier. Eumeu Sène ñoo ngi waxtaanee lu toll ci trois millions quatre cent mille francs CFA le B52 de Mbour un million deux cent mille lañ leen dagg au total ci li nga xamante ni moom moo di seen reliquat ndax ay fautes yoo xamante ni amal nañ ko ci euh, digg euh, géew gi fautes yoo xamante ni amal nañ ko bañ tegee seen tànk ci stade bi rawatina ba arbitre bi soufflé ku ci mooy ne Eumeu Sène sax moom gis nañu benn moment arbitre bi di ko téye mu bañ def ko ci yaramam mujj gi dañ koo mujjee di suflawaat. yaakaar naa ni am na solo waaye métti na tamit diis na loolu ginnaaw bi mu daanee Bombardier ñaari yoon daan Balla Gaye numéro doon ñaari yoon Modou Lo daan ko ñaari yoon mu daan Gris Bordeaux Gris Bordeaux daanaat ko moo tax ñu ne Eumeu Sène ndax du roi ci côté VIP. loolu la ñu wax nee nañu daal jamono ji moom moo nekk roi des VIP ndax euh, ñu ci ëpp ci VIP yi moom moo leen terrassé ñaari yoon moom moo leen daan confirmé waat boppam dëggalaat ko ndax ñu ci bari jamono ji moom jàpp nañ ni Bombardier ak état de forme bi nekkoon ba muy daan Balla Gaye 2 bu Eumeu Sène dikkee rek koy daal di lem waaye nag contraire lañ daal di gis ba tax na gàcce ngalaama ba tax na Amina Ndiaye gàcce ngalaama waaye ñu jeexalee ko ak li nga xamante ne ni moom moo ñu kontaan boobu ba tey ñuy wax rek di ratatati Sénégal gañeeti ne Égypte ginnaaw bi mu ko gañe woon finalu CAN ba par série gañe na ko nag ba pare éliminé ko ni ko dootoo dem coupe du monde ba ma dem ba ñëw moo tax ki nga xamante ne moom mooy seen entraîneur di Carlos Queiroz nee na Aliou nag moom naa Ndiaye njàmbaar la Sénégal moom mooy représenté Égypte ci ci Qatar Omar su may wax lii damay tiitaru ndax champion d'Afrique bu nar a dem Qatar moom mooy waxtaan ak yow nii jamono ji te li ma ci gën a neexati sax moom moo di euh, kii nii di Sall dafa taxaw woon ni wax sénégalais yi nii yéen coupe bi da ngeen koy seen mais da ngeen ko gis tey nag moom du dem. du yóbbante te du gis kuy dem moom mooy toog ñu dem ñëw indil ko résultat teg ci tamit nag comme li ma la waxoon fële rek teela a nangu da yombali dóor Carlos Queiroz daal di nay nangu baissé ay armam da yëgal Aliou Cissé ni ko tu es meilleur que moi maanaam daal yaa ma mën ci bii boor mën ma ca bee boor ndax saytu na fu nekk jëm na comprendre Aliou fu nekk jël nañu sax benn espion euh, teg ko ngir muy traduire li Aliou di wax ak lépp ñu mën a xam ay plan am waaye teewul ni daal Gaynde Ndiaye daal bu jugee rek gaynde la Aliou Cissé gàcce ngaalaama mbaroo di Gaynde Ndiaye Amina Ndiaye yaakaar naa ne démb boo xoolee onze départ bi Aliou Cissé teg amul ku ko xalaatoon ci réew mi mu teg ko suñu borom suturaal ko ci may ko ci ndam mu dugal bit boo xamante ne ni teel nañoo libéré yaakaar naa ni leerali loolu rek la woon balaa maa wax lu ëpp. waaw yal na bu ñu wax lu ëpp sax suñu borom rasta yi daal yal nañu yàlla bàyyi ak moom ba si kanam ak kanam daal ba tax na mbokk yi waaw. il est le seul entraîneur au avec des lox Aliou Cissé rasa. lox léegi na ngaa dégg tubaab nag. Ah, non Aliou Cissé yow am nu mu tuddati Amina Ndiaye je suis un sénégalais. noonu la demee Omar ba tax na nag ku nuyoo ku nekk di nga tàggoo li leen leen indiloon ci xibaar revue de presse yi jox leen dig daje. ba suba ak jàmm incha allahu rabbi.